le populaire daal di fessel ci xëtam bu ñëk waxtaan bi mu séq ak Abou Abel Thiam mi xamné ni kat ñoom def nañ choix bu metti ndax té nañ ni kat lu metti moy yoon bu baax bi te kat mi mu Touré kat ak li nga xam te ni moy qualité yi mu àndal taxna kenn ku ci nekk wala félicité sa morom te ab ñott ju rafet xam ni kat moom moomee li nga xam te ni moy yaakaaru sénégalais yi du ko tas te kat lépp luy kam kamtulaay kàttamam dina ko def ba réew mi daal di jëm kanam waye bo ibé yéne kay bi di La Tribune dafa melni maître Elage Hadj Diouf moom dafa tàng ndaxte xam le na ni kat ki di mi mu Touré mom amul benn compétence moom dafa sax ruus daal di am gàcce ruus ci li nga xam ni nii mooy ëllëgu réewam ndaxte kat Sidiki Kaba moom mi nga xam te ni moom lañ jël jénk ko lépp lu nga xam te ni nii mooy wàllu justice moom moomee kat ah nee nañ moo fi waxoon ci fan yële ñu génn dañu war a li nga xamante ni nii mooy homosexualité te ku ne xam ne ni fii Sénégal nekk ab réewum jullit lenn kenn mën ta wax ba li nga xam ni nii mooy homosexualité daal di légal fii loolu moom dafa war a leer naññ naññ laa dinañ xam ne tamit nag kii di Mimi Touré amul benn compétence ñi nga xam te ni ñooñ la àndal amul benn compétence ku yeboo xam ni rek ñoom ci ab échec la jëm ñi nga xam te ñooy waa réew mi daal di mel ni kuy feelu ki nga xam ni mooy maître El Hadji Diouf ci laas ndaxte li nga xam te mooy remaniement bi ni def nañ ko du bu nga xam ni ni feuilleton la boo xam ni du def dara lu dul durée lu tolloog ñetti buy jeex bu du naanam tale lay daal di jeexee waaye lu ci mënti am le quotidien mu ngi fësal ci xëtam bu daal di xam ni kat kii di di nay jàll li nga xam te ni nii mooy épreuve ndox bi ndaxte kat ginnaaw bi mu nekkee premier ministre génn gi mu njëkk a génn dem na fële ca Fatick ci fi nga xam te ni nii moom la taw yu métti yi daal di daggoon tali ba ñu bëri daal di ciy ñàkk seen bakkat moom moomee di premier ministre daal di na fay dem nemmeeku mbir yi daal di nag ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo daal di des foofu ca ndox mais ba pare daal di xam ne ni kat lépp lu seen kéemtulaay kàttan dinañ ko def pour daal di saafara li nga xam ni nii mooy jafe-jafe yi. ba tey ci laas ñu daal di desandeeg ñoom ndaxte ñu ngi ñuy xam ni kat ëllëg gi ñu génn ñi nga xam te ni ñii mooy comité de directeur bu PDS ñoom doon nañu def ab réunion ndaxte xam ne nañu kat ci mbir moomee de daal di nañuy lu mel ni xamee li nga xam te ni ni mooy Macky ak waa këram ndaxte xam ne nañ ni ci biir comité de directeur boobee réunion bañ ko def daal di nañuy xam ne ni kat li nga xam ni mooy euh, remaniement bi ñu def du dara lu dul daal di firndeel seen tële ak seen ñàkk mën ndaxte xam ne nañ ni kat kii di guvernement wu Abdoul mbay bi def ci dara te tamit kii di Mimi Touré tamit du fi defaat leneen loo xam te ni nii mën nañ ko wax da pare xam nañ ni loolu du dara dañuy tatane rek ñoom daal maanaam xamuñu fenn fu ñuy teg seen tànk ki nga xam ni nii mooy Abdoulaye Daouda Diallo moom du bon moom nag waruta woon nekk ki nga xam ne mooy ministre de l' ndax ñoom ñoo fi doon wax ni ministre de l' intérieur waruta def bokk ci parti politique bi ndaxte moom mais moo war a euh, organiser li nga xam te ne di mooy élection présidentielle yi ñu daal parti APR la bokk te ku ne xam na ni kat loolu moom ay arrange affaire politique la ba tey daal nañuy wax ci li nga xam te ni mooy woote googu ñu doon woote pour que képp ku nga xam te ni nii euh, PDS la daal di dajaloo ki nga xam te ni mooy Famara Sarr daal di nay wax ni initiative boobu initiative bu baax la bu ñuy rafetlu la bu nga xam ne ni maître Abdoulaye Wade daal di nay am xalaatam waaye nag kii di Macky Sall moom warut a bokk ci daje boobu le quotidien daal di fësal di xam daal paradoxe bi nga xam ne ni am na ci fal googee ñu ko nga xam te ni nii mooy Bourgi bi nga dañ ko daal di toppee woon li nga xam ni mooy enrichissement illicite nee nañ nag moom mii di ministre de la justice wala jiite li nga xam te ni nii mooy kuréel googee ñu defaroon pour topp ñi nga xam te ni nii seen am am jaarale wuñ ko yoon ñu ni nag paradoxe la ndax boobu ba muy soutenir ki nga xamante ni nii mooy Bibo Bourgi àndul woon trop ci kuréel googu tey mu war a nekk ministre war a nag layal li nga xam te ni nii mooy kuréel googu war a ànd kuréel googu ko ngir continuer li nga xam te ne nii mooy liggéey bi nga xam ni commencé woon nañ ko Mimi Touré nee nañ nag ab paradoxe la ndax moom dina maintien la kam nee nañ waaw parce que nag dinañ mel ni lépp lu nga xam te ne nii waxoon na ko jëmale ko ci kuréel googu du woon waxu dara lu dul waxu ab avocat bu doon défendre ki nga xam ne mooy client waaye comme que léegi ministre la daal dafa mel ni mbubb avocat bi da koy tegee de côté daal di nag jëmale li nga xam te ne nii mooy topp gi ñuy topp ñenn ñi ci seen xaalis bi nga xam ne nii jàpp nañ ni yor gi ñu ko yor jaarul ci yoon ba tey ci wàllu politique ki nga xam te ne mooy président wu Malien IBK nee nañ nag mon petit ci première visite am bee dafa daal di jappe li nga xam te ni ni Sénégal boo ubbee le quotidien ñu ngi xam ni daal qui di président Mali bi daal moom ñëwut Sénégal dafa mel ni dafa jël Sénégal dugal ko sous embargo li gën a fes ci bopp yéenekaay le populaire tey wax na ko ndaxte xam ne nañ ak benn problème bi nga xam te ni amoon na ci wàllu subvention wu gaz bi nee nañ Touba dañ ko jàpp épinglé ko ndax détournement wu milliards ki nga xam te mooy Moustapha Seye nekk directeur du diplôme daal dinay weddi lépp lu ñu mel ndaxte xam ne kat ñoom dañ leen defal benn rapport boo xam nii ba tey jii ñu ngi koy contexte te ba tey am na ay rumeur yeneen Gueye mi nga xamné ay avocatam am laajoon nañ li nga xamné ni moy ab liberté provisoire ñom nak euh, juge bi daal dina koy rejeter motax ñu daal di fesal seen xët bu njëkk xam ni kat kii di Bara Gueye boobu ma ngay desandi ci ab prison ba ba tey ci li gën fess ci bopp yéenekaay yi boo ubbee yéenekaay yi bi nga xamanteni ni moy l'observateur ci seen cahier de vacances ñu ngi séq ak waxtaan ki nga xamanteni ni moy Sidi sambu mu xamlé ni kan mom 2010 bi ñu génn nak eh, dafa choqué won dafa amoon lu ko metti trop ndax ci circonstances yi nga xamni ci la papaam won aduna ndax ndaxte kat ci benn lak bu metti bu amoon fële ca France la papam daal di génne àdduna ba tey suñu mbokk internet yi ci li gën a fes ci bopp yéenekaay Alioune Tine daal di tontu ci La Tribune xam ne ni kat bu fekkee ki nga xam ni mooy Karim Wade bugg ko recevoir loolu moom droit wam la am na ci sañ-sañ ba tey La Tribune du ñu xamal ni kii di Viviane Ndour nag day daal di fete fukki at ak ñaar yi nga xam ni daal dina koy def ci musique daal dinay promettre benn spectacle bu nga xamante ni daal képp ku ko rate rek daal doo xam fan lañ la koy nettali ba tey li ci yéenekaay L'Observateur daal di ñëw ñun ci lu doy waar ndaxte kat kii di El Farbarito Farba Senghor moom nag dafa am problème bu rëy ndaxte kat ah këram ga nga xam ne daf ko luyee woon fële ca cité biyaay gi doon foo war a fay lu tolloog si 650 000 par mois daal di nañuy xam le ni kat problème ba mu am ak loyaayam ndaxte kat toog na lu tolloog juróomi weer fay ko bor bi daal di nekk ci lu tolloog ñetti millions 250 000 ci suñu xaalis daal di xam ne ni kii di juge bi daal dina koy ordonné pour ñu daal di koy génne ci kër googee ginnaaw toog na ay lu tolloog juróomi weer fay ko takk ak ko luyee woon nee na saa yi koy woo danaan ko defal nànk danga bëggee looloo tax mu porté plainte ko bi ñu woowee ki nga xam ne mooy Farba Senghor pour laaj ko lan la xam ci mbir moomu daal dinay xam ne ni moom mais da yëgu ko ñu wéy ak yéen ci li gën a fes ci bopp yéenekaay yi ci xibaaru jamono ji maanaam fait divers l'observateur daal di ñëw ak ñun ci lu doy waar drame bu nga xam te ni nii daal di nay xewee fële ca Thiès ci benn village bu ñu naan Maninko foofule nag benn góor gu bëggoon a sauver li nga xam ni mooy doomam bu daanu ci biir teen bi daal di ciy wóoraaye moom moome daal di ñàkk bakkanam ndaxte kat bi mu duggee ba ci teen bi li nga xam ne nii mooy asphyxie da ko daal di jàpp ba góor googee daal di ñàkk bakkanam leneen di doy waar ci laas lañ ñu koy waxee ndaxte kat gile góor benn cousin moo ko daal di héberger lu tolloo fukki at ak benn moom nag amul dara lu mu koy fayee lu dul daal di violer lu tollu ci ñeent ñu jigéen kenn ki sax ab doomam la te xale yooyu ñu ngi toll ci lu toll ak juróom benn at jàpp ci 11 ans leneen li gën a doy waar mu ngi daal di am fii ci La Tribune ndaxte kat dafa am ñoo xam te ni nii dañ doon bubboo turu ki nga xam ne nii mooy Selbé daal di def ab escroquerie ñoom nag yàlla def daal nañ leen di jàpp par la section des recherches ñoom nag dañu daal di seen groupe di nax ñenn ñi ci turu ki nga xam te ni mooy Selbé ngoom leneen di doy waar ab témoignage la mu ngi ci li nga xam te ni ni mooy la turbine ndaxte kat nee na moom ab grande sœur am fële ca Saly moo ko daal di jiiñoon góor jigéen looloo taxoon depuis boobu li nga xam ni mooy ab réputation am dafa yàqu woon ba tey ñuy wéy ak ci xibaaru tàggat yaram yi La Tribune daal di fësal ci xëtam bu njëkk xam le ni kat Bathie Seras Lac de Guiers 2 ak Mamady Ndiaye ñoom nag ñoo nekk bureau de vétérans da xam ne ni tamit ki nga xam te ni nii mooy Lac de daal di nay pour daal di affronter ki nga xam ni nii mooy Papa Sow ba tey ci wàllum fubal suñu gaynde yi war a daal di jongante ci fan yi ñu ñëw xam ne nañ ni kat ki nga xam ne mooy Cheikhou kuyaate ci laas moom nag ah dafa daal di am benn blessure bu ndaw moo tax ñu daal di xam ne kat mu ngi ci incertaine maanaam daal ay mbiram wóorul dara ki nga xam ne mooy Dame Doy ñu koy wax mu daal di def nànk mom nenañ nak nag mu ngi avancé sur son puzzle gi nga xam te ni ñoy l'observateur ñoko xam nenañ nak mom moom daal dinay tenir presque son équipe ndaxte kat gi nga xam ni ñëpp convoqué won nañ leen ñëw nañ te ñu ngi entraîner ñu ngi nekk ci condition yu bax ba tay ci walu football ki nga xam te ni moy mooy Kara ak Steph ñom nak nenañ jël nañ li nga xam ne ni moy galon yi ndaxte kat ñu ngi ci équipe nationale transfert Real casque daal nenañ xam xamle nañ kat ñi nga xam ne ñooy waa Real Madrid daal dinañuy génne lu tolloog 65 milliards français fa pour ki nga xam te ni moy joueur boobu tudd baal suñu mbokk internet yi balaa may tàggoog yéen dañuy ñëw ci ndekete yoo ndekete yoo tey jii nag lu doy waar laa leen di indi lii nag ab la turbine moo ko fësal ci xëtam bu njëkk xam ne dañ ne Aminata Tall nekk troisième personnalité de l'État moom dafa mer ni ko mer loolu dara lu ab jëkkëram ki nga xam ne ni mooy Thierno Ba daf ko takkal wujj takkalu ko kenn ku dul Sara Cissé bi nga xam ni nii moo doon journaliste bu kenn dootul présenté nekkoon fële ca RTS daa di fay jóge dem ca Africa 7 moom moomee di Sara Cissé nag lañ takkoon pour mu nekk wujj ki nga xam ne mooy Aminata Tall nañ takkoon sax waaw ndaxte laas daal di nañuy ni kat sëy boobu de altine lañ ko takk xëy talaata daal di koy tas ndaxte kat Aminata Tall dafa ni kenn fi dugg daal di nag ndax ku ne xam na ni borom doole xamul nànk looloo tax sëy boobu tasul de ndaxte ginnaaw bi nga xam te ni ni Aminata teg na ay pression am def na ay femam def na lépp lu mu mën kii di jëkkëram dafa résister looloo tax bi délégation bi demee fële nga xam te ni nii mooy kër ñoom Saara pour daal di tas sëy bi papaay Saara tontuwu dara lu dul kilifa gi fi ñëwoon takk kooku la ñuy xaar mu ñëw pour ñu daal di Aminata Tall moom du mën a wujjee ki nga xam ne mooy Sara sa nekk xale bu ndaw boo xam ne ni amul sax atu doomam yi lu ci mënti am doy na waar trop Sara dina nekk di continuer di nekk ma madame ba ba léegi loolu moom waruma xëy na fii ak altine asbaara dina ci ñëw ak yéen ci lu gën a leer ban nag fii laay ndar keppe di gënoon a fees ci bopp yéene kaay di leen ñaanal jeextalu ay bisub jàmm jërë ngeen jëf